télé bi bégal ngi leen di nuyu di leen gërëm ku ci nekk sa tur ak sa sant di wax ni seen taxawaay ci suñu neuvième édition bi di foiru Reit tout le temps lañ leen fi gis ngeen koy couvrir di wax ni ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax relation extérieure bu rëy it voilà donc euh, di wax ni foire baa ngi nii ñu ngi ci dernier virage yi donc euh, lundi incha allah ca ngoon ca guddi lay jeex incha allah bu ko defee mar na fekk xar yëpp ñibbi di wax ni tey la woon cérémonie officielle bi y avait ministre de l'élevage ministre euh, Diatara qui yore yàlla communication et numérique le ministre docteur Amadou Ndiaye. Et il y avait les parrains des catégories. Les docteurs Ndiaye, les Sidi Ndao, les euh, Ablaye Dieye. Donc il y avait tout le monde, Grand Gibert, ñëpp ñëw nañu. Omar Sow ñëw it ñëw na. Tu vois le président Fonafo, le directeur de cabinet de ministre des transport ñëpp a ngi fi woon. le gouverneur et le préfet et le sous avec les maire kon tey jii ñu wax ni suñu paris bi tey dañ ko réussir mooy lan fexe nañu ba cérémonie officielle bi ñu mobiliser ñooñu ñëpp ci benn matinal boo xamante ni dañu toog tranquillement nekk ci cérémonie bi tranquillement déglu jooytu yi tranquillement ndax bu ñu demee mën ko yóbbaale ndax demee ñu mën ci ut solution parce que li nga xam mooy charité du aliment bi moom la ñu def thème tey ñépp xam nañ ne aliments yi cher na éleveurs yi sonn nañu ñu def ko tem ne loolu war nañ cee wax ak ministre wax ci bu ñëpp dégguñu pour ñu mën ko wàññi en tout cas ñoo fekk laa Ladoum TV ànd ak ñun ci loolu ànd ak ñun ci foire bi ça nous fera plaisir waaw. organisation foire bi ni ma ko gisee mooy man damay dellu di ko dell dal micro bi ñi nga xam ñooy visiteurs yi parce que ñun suñu Pastef moom mooy ñu organiser foire bi mais duñ ca yem dalal gan yi mais duñ ca yem mais tatagal gan mais duñ ca yem xool ba xam gan yi amuñu problème ah ci fi ñu nekk loolu moo doon suñu occupation mais yàlla def na ci jàmm wër nañu stand yëpp chaque jour dinañ jàpp matin et le soir wër stand yëpp dinañ laaj ba xam amuñu problème ba xam ça va tout le monde dit ni ça va bu am niveau bi am dayo bi defe naa ni suñ premier au Sénégal man loolu laa jàpp. am na nag ay naataangoom foiram yu mel ni Adam waaye bii dafa nekk lu particulier voilà parce que deux cent soixante-dix box du lu yomb du lu tuuti. soo ba organiser ko ah, ba samp ko ba teg ko. recevoir des milliers des milliers des milliers de personnes boobu ba léegi kenn constaté fi benn dégât boo xam ni tax na ñu naan dégât kon dañuy sant yàlla dimbalu yàlla nag moom moo ci nekk voilà kon nag li ñu mën a def moom mooy di wax ni organisation bi daal wax dëgg yàlla ñu jàpp nañ ni organisation bi jaar na yoon voilà mënuñoo watale lépp nag mais xam naa ni si c'était cent les quatre-vingt-quinze pour cent yëpp xam naa ni c'est normal jaar na yoon waaw bu ñu ci organisation bi léegi nag euh, niveau foire bi yi fi dugg si li ma ci ni ma ko jàngatee mooy moo lay wax ne élevage bi am na jéego bu rëy rëy mooy nit ñi liggéey nañu parce que fii tey foofu ay record yoo xam ne fee daanu et ci foiru Kees bi la daanu et puis mi ngi daanoo la ci ubbentilu foire bi mu nekk foire bu njëkk ci bi mbas mi dugg ak léegi. mooy record poids daanu na fi 174 galactique xalaatu ñoon dina daanoo kees mais daanu na fi 177 kilos ki nga xamante moom mooy LCS tamit daanu na fi muy euh, karamoxo comprendre kon yooyu yëpp dañ ciy sant yàlla tey ji bu ñëwee ba foire kees ay euh, record bi fi daanu moo leen ni foire bi am na niveau recordu femelle femelle adulte auteur record daanu na fi ay 106 jëm kaw Ah, donc kenn su ngay dégg ci élevage mais tey dégg nañ ko te dégg ñu ko ci benn xar rek loolu moo lay wan ni kon élevage bi ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey liggéey bu doy waar kon nag sant yàlla di wax gars rek an ñu nekk ci lancé boobu kon na ci lancé boobu gën a liggéey xam ni c'est le seul travail qui loolu rek moom moo ci am solo. président sa dernière kàddu ak Ladoum sama dernière kàddu moom mooy ñu ngi leen jox rendez-vous tout à l'heure ci finalu agnel agneau yi ak finalu. li nga xamante ni moom mooy femelle espoir yi ak mâle espoir yi waaw loolu ñu ngi leen ci xaar léegi incha allah rabi ci kanam jërëjëf mon frère. laadum tiit laadum tiit yi ma leen wax moom mooy seen liggéey rafet na man à chaque fois ma bëggee seetaan xar su ma duggee ci YouTube bi yéen laay tàppe pour mën ko xool mën a am lu ma neex laadum tiit bi ca kaw ca kanam jërëjëf gaay sama